asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci MKTV di télé bu mag bi bàyyi ko fii ci biir jumaay Tuubaa ji dellusiwaat nañu ak yéen di leen nuyu di leen ndorkeel di dellusiwaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne ñu ngi ko jagleeloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mboorum yonent bi di doon ci ànd ak yéen ba tey ñu ngi ci fukkeelu bind bi ak juróom-ñett ñu doon waxtaanee jaar-jaar yonent bi ñu ngi tolloon ci bindub euh, alxabibul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñ borom joxee ndigal mu gàddaay lu jiitu ndigal li suñ borom di ko jox waxoon nañ nettali nañ saxaaba yi niñ gàddaay ñoom ñëpp niñ génne ba wax noon yi. pexe yu mag ya nga xam ne ña ngi ko doon lal nettali woon nañ lañ laloon lépp doon ko nose ca barab boobu ñuy wax daarul arqam ibn abil arqam euh, daaru nadwa barab boobu ñuy wax daaru nadwa fa lañ doon nose lañ doon nose daarul arqam ibn abil arqam moom jaaroon nañ ci ba waxoon ne barab la woon boo xam ne mooy barab bi yonent bi njëkk tànn def ko barab boo xam ne fa la ñuy daje di fa jàng ak jàngale kon barab bañ doon dajee di nos ay pexe ca gàddaay ga daaru nad wala tudd mu nekk barab boo xam ne ñaare buñ fa toogee di waxtaan rek ñu ngay waxtaane lu rëy te ñoom waxoon nañ ni daal bëgguñu mu génn màkk ndax bu génnee màkk bu dellu siwaatee dana ñëw ak doole te lii mu nekk nii fum dem dana leen convaincre loolu tax na ba suñ boroom xamal yonent bi mboolem lañ wax foofu ca daaru nadwa ak lañ fay fexe waaye borom bi dalal xelum yonent bi ne ko daal ñoom ña ngay pexe manit maa ngi fexe te samay fexe mooy samay pexe muy jëm kaw wa yamkuruuna wa yamkurullah wallaahu xayrul maakirin ci loolu bi mu jotee ndigal li ci la ñëw ci kër Abu Bakar waxoon nañ ko ci bind bi weesu nam ko waxee Abu Bakar ak nañ waaje ak nañ génne ak lim ba génnoon ak lañ def ca xuntuma ak la fa xew ci xeeti kimtaan yooyu yëpp waxtaane woon nañ ko ci bind bi weesu ba ci bind bi weesu sax andi woon nañ abyaat yi nga xam ne sëriñ bu mag bi cheikhul xadim radiallahu taala anhu wax na ko ci xasiidaam gu siiw googu di jësbul xuluub li allaamil xuyub mu wax ca kimtaan yi nga xam ne feeñoon na ca ca gàddaay ga ca xunt moom yooyu yëpp waxoon nañ ko ci bind yi weesu kon nag tey dañuy ñëw wax bi yónnent bi jógee ca ma nag wuti ma diinatul a munawwara ànd ak mbooloo moom nga xam ne Aboubacar waajal na ci alalam ci ay pexe mboolem luy tax rek ñu réussir ci dem gi rek maddiyan wa maanawiyan Aboubacar waajal na ko waxoon naa ne Aboubacar luye woon na koo xam ne ku xam yoon wi la ko xam mm, àll màkka bi la ak saxaraa bi ku ñu wax Abdullah ibn Urayqit kooku moom moo leen doon jaarale ci yoon woo xam ne baaxuwuñ faa jaar ak uh, Amir ibn yi moom nga xam ne kenn la ci uh, liggéeykati Abu Bakr yi ak Asma bintu Abi Bakr ak Abdullah ibn Abi Bakr ñoom ñëpp seeni tur wadd na kenn ku ci nekk rôle ba nga suyee ci gàddaay gi wax nañ ko ci bind yee weesu léegi nag yonent bi wuti na madinatul munawwara niñ ko waxee léegi amir ibnu fahayr abdullah ibnu urayqin abu bakr as siddiq ak sang bu tedd bi yonent bi sallallahu taala alayhi wa bi ñuy dem am na barab boo xam ne nii ci pexey abdullah ibnu urayqin mii nga xam ne moom lañ duwee woon nga xam ne moo xam saxaraa bi moo xam mbedd yeeg fi ñuy jaar am fu mu leen bëgg a jaarale foo xam ne coono bi bu baree lool ñu mar walla ñu xiif wala coono bi tukki bi am na barab arab yi daan nañ fa faral di jaar di noppalu barab boobu barab la boo xam ne mi ngi ci diggante Màkk ak Madina ci yoon woowu nga xam ne ci la Abdullah ibn Urayqit jaaroon ana barab boobu mooy ban barab boobu mooy xayma soxna su mag soo suñuy wax ummu Maabad umu Macbad xaatika bintu bintu Xaalid lañ la mooy aw turam dëgg dëgg dëgg ñu déglu bu baax xaatika bintu Xaalid mooy aw turam dëgg dëgg umu Macbad bu dafa yoroon benn xayma boo xam ne da ko defoon ci saxaraa bi ab sàmm la woon umu Macbad mi ngi bokk ci xabila bi ñuy wax xusaa xusaa umu Macbad al xusaaiya la lañ koy woowee xusaa xabila la boo xam ne ñoom ñu ngi cosaanoo Màkk ak li umma abad moomu ab sàmm la boo xam ne ci xaymaam boobu ñaare bu jamono neexee ku doon tukki boo fa jaaree soo bëggee jënd soow mu jaay la soo bëggee jënd ndawal mu jaay la soo bëggee jënd tàndarma mu jaay la toog ca xayma ba xéewalu def li nga bëgg a def waaw waaye yàlla def nag biñ jaaree ca xayma ummu maabad bi ñu nuyu ko mu dalal leen ñu ne ko ñun dey dañoo soxla woon ndawal ak tàndarma joo xam ne bu fekkee am na fa juy jaay Umm Ma'bad ne leen de wax dëgg yàlla jamono ji naqari na naqari goo xam ne fi mu ne moom dara dara dara amu fi luñ mën a lekk ak luñ mën a naan ndeysaan bi Umm Ma'bad waxee loolu fekk am na benn benn xar boo xam ne benn gàtt boo xam ne bu loof lool sax bu ne ci wetu xayma bi noonu tëdd loof gum loof moo tax àndut ak moroomi xaram yooyu ñu sàmmi ko ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam daan ne umu waa gàtt bee nag moom umu maabad ne ko kee day loof gum loof moo tax àndut ak moroomi xaram yooyu ñu sàmmi ko yonent bi ne ko ndax ma des na am soow mu ne ko ah bu fekkee nga caa génneem soow kay mën ngaa dem waaye léeg-léeg gàtt bee de boo gisee ni mu loofee moom yaakaaruma ne am soow mën na caa génne nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dem ba jege gàtt bi gàtt bi jug taxaw mu jël loxoom bu tedd ba raay ko ci weeni gàtt bi daal di ñaan wax bismillah gàtt ba daal di jékki mel ne dañ koo wal maanaam weeni jékki-jékki rek fees dell akum sow gàtt bi jug taxaw noonu mu yooye woon mel ne dafa fees dell yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di laaj ne nañ ko indil ndab ñu indil ko ndab lu mag mu jël loxoom yi tedd ya di rat ci gàtt bi ba ndab li fees ñoom ñu àndoon ci tukki bi ñoom ñëpp ñu xéewlu ci ndigalul Umm Ma'bad moom nga xam ne moom moom gàtt yi biñ daanee ci soom ba noppi yonent bi daal di laajaat beneen ndab ñoo di laat ko beneen ndab mu rattaat man ndab li fees Umm Ma'bad daal di yéemu ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci loolu loolu kon mooy escale bi nga xam ne amoon na ca xayma Umm Ma'bad boobu nga xam ne kutubu siira yi ñëpp a ko indi Abu Ma'bad bi ñëwee mi nga xam ne mooy boroom këru Umm Ma'bad daani waa gàtt bee nga xam ne dama koo bàyyi woon mu loof tëdd tey mu taxaw nii suur weeni fees dell lii lu lu xew sama ginnaaw nee na ndeysaan Ummu Ma'bad ne ko nit ku barkeel moo fi jaaroon góor gu baax ku barkeel nee na boroom këram ne ko dooma melal nu meloon wax ma ay melokaanam ca la Ummu Ma'bad nag wax melokaan yu yu neex yooyu nga xam ne daanaka ñuy bind wala ñuy wax ci li ñuy tuddee asamailul muhammadiya asamailul muhammadiya mooy melo yonent bi ci zahir ak ay meloom ci jikko um maabad daal di wax xadis bu siiw boobu nga xam ne mi ngi ci kutubu xadis yi raaytu rajulan saahiral wadaati ablajal wajhi xasanal xalqi maanaam melal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man day jëmm ji fi ñëwoon ma gis ko ku leer naññ la nit la ku leer koo xam ne xar kanam bu rafet la yore ay maanaam ay bëtam nit ku am bët la jébi daa génn ku bari muuñ la xar kanam bi rafet te yaatu njoolut gàttut rëyut tuutiwut dënn bi génn wax ay melo yoo xam ne ñii nettali melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka loolu Ummu Ma'bad wax noonu lañ ko nettalee boo demee ci jës bu sëriñ bi bi muy nettali yonent bi sallallahu alayhi wa manees naa wax ne xadiisu Ummu Ma'bad bi loolu la yaa mulhiman xad wafaqaa salli ala man xuliqaa wal xalqa faaqa xuluqaa kal xalqi wal tusallimi xad kaana saa tawassuti fil xaddi jaali sutati muy bayit yooyu nga xam ne sëriñ bi mi ngi ciy melal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa wajhuhu wa huwa xamiisun azharu wa huwa bahiyun asmaru murattilu takallumi ba ca wa askalun mubtahiju wal wajhu maahil xumami wa huwa akmalul wara xalxan wa xuluxan zahara wal mislu xat lam yura walan fi siyami umu mahbat di melal taarub yonente bi sallallahu alayhi wa ba àgg banaan moom day jëmm la joo xam ne ñim àndaloon ñëpp dañ koo wormaal koo xam ne nii bëriwutoo ni wax bëriwutoo ni nopp bu noppee da ngay gis nit ku wegu ku am personnalité waaye su waxee rek dangay ngay bëgg doo bëgg sax mu noppi doo doyal mukk ci ay waxam ndeysaan di melal wax ji di melal doxin wi di melal taar bi di melal baax gi boroom këram toog di ko diglu di ko diglu ba mu yeggal mu ne ko see yow de jëmm ji nga wax ni moo fi jaaroon ci suñ xayma bii kooku mooy ka ñuy soow ca màkkatal mukarrama kooku mooy ki nga xam ne mooy woote jikko ju rafet kooku mooy yónente yàlla bi kooku mooy ki nga xam ne yàgg na maa mébét ak a bëgg dem jox ko loxo jaayanteek moom loolu la sëriñu Umu Maabat muy borom këram tontu ba nga xam ne Umu Maabat leeral na ko melo ki nga xam ne jaaroon na fi macha allah famille boobu it yàlla dimbili leen ba jot nañoo dugg ci lislaam mooy ummu maabad moomu ak boroom këram noonu ma ko waxee dem na madinatu munawwara jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak soxnaam soosu di ummu maabad yonent bi daal di continuer wuti euh, madinatu munawwara yonent bi ba muy dem madinatu munawwara ba àgg ci barab boobu ñuy wax masjidu Quba wax nañ ne ma nga fa àgg juróom-ñetti fan ci weeru gàmm juróom-ñetti fan ci weeru gàmm la fa àgg bisub altine def fa altine fanaan fa altine talaata alarba alxamis manees naa wax sax ba ne ajjuma ci suba gila dem maanaam daanaka daal juróomi fan def na ko ca xob foofa ñuy wax xubaa foofu it ba mu fa agsee masjidu xubaa googu fala la lañ ko defal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkka joo xam ne nii def na ko foofu ca xubaa nga xam ne jàkk jooju woom lañ wax ne mooy jàkk ji yonent bi njëkk a taxawal moom la yàlla junj ci alxuraan la la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fii jàkk jooju la ñuy wax masjidu waa nga xam ne dañ koo sos ca yàlla rekk tax muy masjidu xubaa nekk foofa ca wetu madinatu munawara wax nañ ne sax jamono jooju nga xam ne yasrib ab dëkk la woon xabaayil yi am ay dëkk-dëkkaan yoo xam ne dañoo wër baal baaliye bi yoo xam ne dañoo wër madinatu munawara xubaa ci la bokkoon jamono ji ñu toll nag madina ñëw na ba nga xam ne ëmb na ko ba mu nekk ci biir madinatu munawwara waaye bu njëkk amoon na distance lu mu gàtt gàtt ñeenti kilomètre ak jàpp juróom digganteem ak madinatu munawwara léegi xubaa nag dubb na ci biir mooy masjidu xubaa googu ngay dégg masjidu xubaa mooy jàkk ji njëkk sos moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu koy wax naan alxuraan naan ko min awwali yawmin axaqu an taquuma fii ne nii am na sababu nusul buñ agsee ci ko gën a nettali incha allahu taala waa Quba nag bi yonent bi dem dañ doon jooy bëgguñu woon mu dem danañ ko daal bu ñu sañoon nga dal fii ñun euh, bëgg nañ la ca doyuluñ sa jëmm ji ndeysaan yonent bi xamal leen ne leen nag <laughs> incha allah kóllëre gi dana ko sàmm seen diggante ak ñoom tey it euh, comme dafa jëm ma madinatu munawara euh, ci ndigalu suñ borom ñu bàyyi ko ma dem madinatu munawara kóllëre googu dox na ko ndax wax nañ ne daana def bisub samedi bu ne mu dem siyaara ji Quba dem ca jàkka ja julli fa ñaari rakka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge Quba am na feneen fu mu escale fu ñuy wax euh, foo xam ne benn góor gu fa nekk goo xam ne wala xabila bu ñuy wax Kaltuum ibnu Hindum Hidm bi kasril ha wa sukkooni daal comme ni ko téere yi binde Kalsuum ibnu Hedmu loolu la tuddoon kooku nekkoon góor goo xam ne góor gu màggat la bokk ci waa awsu moom nag ne nañu tuuboon na lu jiit yonent bi di ñëw yonent bi jaar na foofu escale fa foofa it euh, xabila ba fa nekk ñu ngi tudd bannu salim ibnu xawf bannu salim ibnu xawf xabila boobu ñoo fa nekk ñoom it dañoo kar yonent bi wax daal ne daal ñun xabila lañ boo xam ne am nañ doole am nañ alal buñ sañoon nga dal fii mooy mooy li li waykat ba naan ku ne nga naan sama kër lay jaari maa gën a yey ci gan gu toll ni rasulullah yàlla maanaam xabila bu mu jaar wala village bu mu jaar wala kër yu mu jaar ñooñu dañuy génn ak seeni teraanga kon yonent bi sallallahu ba tey nag biir Yasrib nag xam naa ñu bari ñu ngi naan Abu Ayyub al Ansari yi waaw ba mu agsee biir Madinatu wara kër Abu Ayyub al Ansari la daal ci agsee guma ci xistab Abu Ayyub al ba tey mi ngi ci yoone bis bu yàlla sàkk waa ma madinatu munawara danañ génn ci mbedd yi yéeg ci kaw garab yi yéeg ci kaw terrasse yi kër yi comme tabaxi ban yi ñu doon tabaxe di séentu gan gi rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee nañ ñu taxawee daanaka ba timis jot jant bi so ñu wàccaat delluwaat ci kër yi ba suba ak jàmm ca duñ tàyyi nag lu tax mooy dañoo yàkkamti ki ñuy dégg te mosuñu koo gis dégg nañu aw meloom dégg nañ ay jikkoom dégg nañu mbaaxam te nee nañ fii la jëm si ci ndigalu suñu borom ñoom it seen dënn yu yaatu ñu yàkkamti koo gis lool bis bu yàlla sàkk ñu génn taxaw ci montagne yi taxaw ci kaw garab yi taxaw ci kaw terrasse yi di ko séentu ba jant bi so gisuñu dara ne nañ jamaat ba ëllëg loolu naka noonu madinatu yonent bi di def escale wax naa léegi escale bu mu def ci ummu maabat ak escale bi nga xam ne def na ko ca xubaa euh, ak escale bii nga xam ne nag moom la def ci kaltum ndax bi mu jógee ca ummu maabat wax naa ne la altine la fa la fa la fa wàcc moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam talaata àllarba alxamis ajjuma ci suba la jógee ca kër xayma la jógee ca Quba masjidu Quba wuti madinatu munawwara nag ba mu agsee ca dëkk boobu nga xam ne Kalthum mii ma la wax fa la dëkk dajanteeg jullit ajjuma jot nee nañ foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a jullee jullit ajjuma jàkk jafa nekk sax moom la ñu tuddee masjidul jumaa masjidul jumaa lañ koy wax masjid boobu noonu xabila bi ñuy wax saalim Salim ibnu Awf ñoom ñoo ko moom euh, wax nañ ne diggante masjidul jumaa googu ak masjidul xubaa gi ma doon nettali léegi nga xam ne yonent bi def na fa ñeenti fan wala juróomi fan diggante bi wax nañ ne kilomètre lay tolloo wala lu ko gën a néew tuuti diggante bi waaye léegi lépp dugg na ci madinatu munawara foofa yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli na fa ajjuma masjidul juma nag yonent bi ma fa àgg fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm bu ñu ñëwee fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm nag mooy bis bi ñuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gàmm kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma nga àgg ca masjidul jumaa ajjuma jëm fa njëkk a julli fukki fan ak ñaar la ci weeru gàmm ci atum benn ci gàddaay gi tolloog 27 septembre 622 euh, miladiya booba jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay atam mi ngi tolloon ci juróom fukki at ak ñett kon ajjuma ji njëkk julli ci lislaam ji njëkk a julli ci madinatu munawwara xissa bi mi lii la mooy yonent bi dafa bàyyi ko masjidu xubaa maanaam euh, suba ak aju bi jant bi fenkee rek mën naa naa wax ne la ay 10 heures jàpp 11 heures la génne masjidu Quba ci xayma rek taqriban bi muy agsi nag fii nga xam ne xabila bi ñuy wax bannu Salim ñoom ñoo fa nekk bannu Salim ibnu Awf nga xam ne waa Xasraj la lañ bokk ba mu fay tolloon rek dajanteeg 13 heures jàpp 14 heures jot yonent bi foofu wàcc ca góor gu màgg googu nga xam ne góor gu mag la dugg na ci lislaam lu jiitu yonent bi di agsi ñu waajal foofu jullik ajjuma ñu njëkk faa jullee nag jullig ajjuma ci lislaam ba tey nag waa Madina ñi ngi dégg naan jege si na ñi ngi dégg naan jege si na ah foofu nag ba fa yonent bi ak seen ak moom euh, loolu faawu dañ koy wutal jataayu boppam nam duggee Madinatu Munawwara na ko waa Madina teeroo euh, xasaayid yañ ko doon teeroo euh, xabila bu mu jaar rek waa xabila ba génn génn seen alal ak seeni mbooloo ak seeni nit ne ko dañooy ñaan nga dal fii ci village bii nii man ngay dem Madina ak ñëw jàpp ci giléem gi giléem gu yonent bi mu naan leen utruku naaqa fa innaha ma'mura bàyyi leen giléem gi rek <laughs> giléem gi moom suñ borom jox na ko ndigal fa ma war a dëkk bu fa àggee dana yées loolu ba mu duggee Madinatu Munawwara ban place la yées moom giléem gi eh, ñu bari xam naa turu Abu Ayyub al Ansaari yi ñu ngi koy xaar waaye yonent bi bu dee escale rek Kalsum mii fa njëkk a escale ci jataay yooyu kon mbokk yi gàddaay gi lu yaatu la loo xam ne xew-xew yu bari am na ci yoo xam ne daanaka sax ñun yi gën a fës ak li ñuy faram-fàcce faram-fàcce yëpp euh, yi gën a fës ci xew-xew yi rek la ñuy nettali euh, kon jàppal na yonent bi ay atam mi ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom euh, juróom fukki at ak ñett bi nga xamee ne mi ngi ci gàddaay gi jaar na ci étape ummu maabat xaymab ummu maabat bi nettali naa ko léegi jaar na Quba nettali naa ko léegi jaar na jaar na ci góor gu màggat googu nga xam ne mi ngi bokk ci xabila xasraj ñu koy wax kaltuum ibnu hindu ibnu hidmu kaltuum ibnu hidmu jaar na fa moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, kaltuum mi sax danaa ci taxaw tuuti bala may tëj insha allahu taala kaltuum mi euh, moom teel naa dugg ci lislaam borom xam-xam yi sax am na ñu naan mooy ki njëkk faatu ci waa ansaar ndax at ma fa yonent bi jaaree ba at ma dellu see rek la faatu moo tax ñu bari di wax naan kaltum mi mooy ki njëkk faatu ci waa ansaar xam nga waxoon naa leen leen ba may nett li ca gàddaay gi asma nee naa leen doomam mooy ki njëkk juddu judd ci ginnaaw gàddaay gi kon jàppal ne kaltum mi eh, lenn ci borom xam-xam yi nee nañ eh, imam tabari sax moo ko wax nee na kaltum mooy awalu man maata min al ansaar ki njëkka faatu ci waa ansaar bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam duggee madinatu munawwara mbokk yi kon eh, daanaka ñaari escale yooyu muy Quba ak euh, masjidul jumaa ca yëpp yéen a koy dégg ci lislaam madinatu munawara nag léegi dem na ba nga xam ne jumaa yi ak jàkka yi bari na lool waaye jàkka ja fa njëkk mooy Quba jàpp ji jàkka ja ca topp mooy masjidul jumaa jàkka ja ca topp pat nag mooy ba mu duggee Yasrib nag jàkka ja nga xam ne moom defar na ko ca jàkka jooju lañ ko denc loolu xisab boppam lañ koy indil incha allahu taala ci jotaay bi ñu jëm incha allahu taala danañ ci gën a leeral bu baax a baax a baax a baax jàkka jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sos nga xam ne bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy taxaw taxawal jàkk ba mu duggee madinatu munawwara waa ansaar lañ ko waxoon ba ñëwee ca bayxatul aqaba bayxatul aqaba ca ni ma ko nettalee woon ba ñëwee fekk madinatu munawwara ne ko boo ñëwee danañ la aar danañ la gàttandu danañ la taxaw danañ la yiir yow ak képp ku la gëm noonu lañ ko defee ndax saxaaba yi jiitu si nañ nekk ci ay dal yu baax a baax a baax ay conditions yu baax a baax baax a baax xaar yonent bi sallallahu alayhi waa Makka ak waa Quraysh échec bu baax baax a baax waaye yàlla suñ borom it la mu waxoon yonent bi sallallahu alayhi ne ko euh, wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin ñoom ñi ngi fexe waaye man maa lay fexel yàlla mi ngi gën a aar yonent bi sallallahu alayhi wa donte ñoom teg nañ alal ju takkoo takku ne ku indi Muhammad muy dund wala muy faatu yow la ñuy jox alal ji ñoom ñëpp ñu génn tasaaroo ci àllu màkk bi tasaaroo ci mbedd yi ca taxut ñu man dara ci yonent bi sallallahu alayhi léegi yonent bi dugg na biir tund wi dugg na ci biir tund yi xam ne nag dëkk boobu mi ngi tudd Yasrib su ma agsee incha allahu taala ci yasrib danaa leeral baatu yasrib bi lan moo ko waral fan la jóge baatu madinatu munawara bi lan moo ko waral ak lan moo ko indi ak madinatu munawara sax ñaata xeeti tur la am moom madinatu munawara bari tur lool yoo xam ne yépp ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko loolu ci jataay bi ñu jëm incha allahu taala danañ ko gën a leeral kon day mel ne yonent bi mi ngi bëgg a ci étape bi ñu tuddee al marhalatul makkiya ñëw ci étape bi nga xam ne mooy bi gën a yaatu ci dundam mooy étape bi nga xam ne ci xew-xew ci la xewee mboolem xare yi ngay dégg xazawaat yi ci état boobu la xëy état boobu ñuy wax état bul euh, état bu na mën a wax alxuraanu karim sax boo gisee ñaar rek moo fi am alxuraan joo xam ne Màkka lañ koy askanale ak alxuraan joo xam ne Madina lañ koy askanale Madina di dëkk boo xam ne yonent bi da koo bëggoon lool euh, sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi bëgg ko ak wax yu bari yi nga xam ne wax na ko ci Madinatu Munawwara euh, jataay bi ñu jëm daal waxtaanu Madina lay doon incha allahu taala ñoo ngi sant mbokk yëpp di leen di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wal imaamu imaamul mursaliina ma'an wal anbiyaa'i yaqiihim fil jawwal umamaa